mënu ma kaa ci làmb parce ndaanaan la. Mhm. ñi ma daan da leen daan. xam nga man tey manuma damay bëree ay ay ñoom Gris 2 te nu ma bëree ñoom. Mhm. parce que maa xam làmb moo koy waxtaane làmb moo ko soxla. ñun soxla ñu combat bi de. Mhm. amateur yi ñoo soxla làmb ji. bu doon mën a xam man taxaw na bu yàgg instant ñu ngi wàcc suñu combat billaahi wallaahi taala bu doon bu doon si man rek la. kon fi mu toll nii bu la Fallou Ndiaye seet si woon wala keneen ku dul Fallou Ndiaye. bu la joxee avance mu yóbbu ko avance euh, Youssou Ndour. si lamb la lamb laay def te moom mbër la ndaanaan la kuy bëree moom day neex. mais kon jàpp est-ce que jàppuloo ni combat bi taxaw na ndax nee na fi mu toll nii moom dafa sës. waaw acca moo ko teree neex. bilaa walaay taraay moo ko teree neex. mais la moo tax lan moo tax nga nga nga jàpp ne Lamine dala ragal Youssou ñemewu la. non lamin Lamine Golo moo wax ba dëx bët ñu taxaw ba taxaw mu wax loolu. xam nga bu doon rumeur la a dama ko dégg si vocal moo xam ne mais dafa taxaw wax sama mbër doo bëree sama mbër. lan la xanaa musique bi dafa saf wala. xaw moo xam de xam naa ni expérience expérience bi la rek li ma mën si bëri mën naa moo ko tiital. <laughs> mais mën a feeñ ci kanam Youssou Ndour. lu damay laaj xaw ma. waa léegi lan moo tax. yow léegi loo gis Youssou ba bari man sama bëree moom warul feeñ ci moom. non dama ne da nga mën a bëree man a bëree dina feeñ ci kanam Youssou Ndour. ma mën kaa Youssou Ndour kaa jàngal bëre. mën ngaa wax paa yi ñuy teg pour nga bëre yàgg moom ku daa ko waaye loolu nga wax nànk. non damay laajte xam maa daa ko bëre. parce que Seydina maa daa ko bëre. yaa daa ko bëre Youssou. billaahi wallaahi taalaay. képp doole tegoon tefes maa moom nii tefes. waaw ma def ay kale ma jàngal ko bëre bu demee ba jeexal ma jàngal ko ay ko bëre yeneen kale yu mu war a defaat. yàgg moom ku daa xeex. non loolu xeex kenn mënul xeex xeex mbirum góor la rek. képp doole. doole a ku gën a liggéey moo ëpp doole. Youssou nee na bu ngeen demee ci tefes mu jàngal ay clé ba nga jeexal boo paree mu joxaat la yeneen. waaw mhm. mën na nekk ndax nit du matériel yëpp doomu aadama. nangu nga ne moo la moo la dàq boobu. ah loolu wax. yaa ngi toog kay. loolu la waaw dama jàngal bëri ndax nit du matériel lépp mën naa am am am fa mam kii waxoon ne man du mën bëri mu jàngal ma. ah boo bàyyi ba bésum bëgg laa jàngal dina yéeme. na bàyyi ba ñu comme ñu jàmmarloo ba pare ba génn si mu jàngal ma bëri. <laughs> caat caat fi toll yaa ngi xool sa waaye di ko di ko di ko jéem a napp ak affaire yu demee. non saa man ma ngaa napp saa ñu ne ñu ne booy géejewaay la ñu ne booy géejewaay du la xanaa ku ma mën naa ko ragal mais ma koy gis nii mooy seen loolu laa ah, na peut-être yoo xam te génneegu ko. Ah, baax na mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër waxtaan ak ñëw waxtaan seen carrière mais fi mu toll nii fi mu toll nii bu sa combat euh, Thiatou Yoff taxawoon naka nga ko nar a waajee. waaw kon noonu la wàcc. comme que comme que bëggoon nañ ko muy tegee ci yow gannaaw dem nga yow ba nangu nga fi mu toll nii wala pare nga pour jël. combat bi muy tagg ci yow. loolu lay may yow noonu laa ko noonu laa ko. non musu tagee non si moom la tagee. waaw dafa jàpp ma la tagee. na nangu rek moom la tagee parce que moom bu yow nanguwuloo ci yow la tagee. léegi su ma la tagee. waaw léegi pare kon de xanaa leer na kon.